تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين حبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع Muhammadu xayrul aalamiin. ñoom biñ fiy nekk. biñ ñoom xëy na sax ñoom embauché wuñ leen. booba ñoom embauché wuñ leen. mais léegi yëpp ci kaw barkeel la rek. lépp rek ci barkeel la. parce que da ngay def lu baax. da ngay def lu baax. suñu borom feeñal ko feneen. suñu borom feeñal ko feneen. parce que def naa sëriñ bu mag bi jóge na fi lu yàgg. nee na defe naa ni bu mag bi jóge na fi bu yàgg. Touba buñ ko daan màggal. Touba buñ ko daan màggal. ay gat gataan la ñuy la ñuy la ñuy lewatal mais tey jii gis ngeen kon mu toll. wax ne lii mu ngi doog a tàmbali. moo tax bu ne njëlbeen koo gis day sewal lii mu ngi doog a tàmbali. man dama koy gëm. man dama koy gëm. man daal di leen sant di leen gërëm. ma leen sant di leen gërëm. di leen wax ni daal sama fierté ngeen. di leen wax ni yéen ñii sama fierté ngeen. xam nga léegi yéen parce que yéen vous êtes très reconnaissant. nee na yéen daal am ngeen reconnaissance. am na lu bëri nag da ngeen koy seede ci Raja. nee na yéen a ngi seede ci Raja. ni moom bi mu nekkee ak yéen. waaye bi mu nekkee ak yéen. lépp dafa mas a rafet. lépp dafa mas a rafet. barki démb Cheikh Diop ku ñu wax Cheikh Diop. barki démb ku ñu wax Cheikh Diop. moom laa leen di wax moom laa amaloon problème. moom laa amaloon problème. dañ ko dugal ci panel bi mu ne noo dugal ngeen ma waaye li ngeen man duma ko man nee na dañ ko dugal ci panel ma waaye ndax a jënd carte du ma a cotiser a a cotiser ndax dafa am feneen fu ma bokk ndax dafa am feneen fu ma bokk man xam naa ne am na ku ko woo ci suuf man ko woo suuf mu dellu woowaat ma mu dellu woowaat ma di ma wax ma ne ko xam nga dafa am yow loo xam ne umpale nga ko di ma na loo ko fekk mu ne ma léegi man dama bëgg ñu ñu ak ma ne ko yàlla xam ne ko yàlla xam nañu jàppal lu la dara ndax moom laa amaloon jafe-jafe boobu moom laa amaloon jafe-jafe te téewu ma ci dara ndax ñoom bi ma jëlee décision ñoom ngeen jël décision ca laa ci pare. nee na ma ko dara ndax bi ma jëlee décision ñu jël décision ci laa xam ni affaire bi jeex na. ma ma ne ko keroog yow xam nga li nga umpale mooy keroog bi may ñëw maag góor gee ma ne ko li nga umpale mooy keroog bi may ñëw maag góor gi ñoo toogoon. kon donc moom. décision ba mu mujjee jël ba loolu moo compté. kon décision bi mu mujjee jël moo compté. donc. daal di wax ni. wax naa ko ci lu bari loo xam ne après xam na lu mu xamul woon. fàttali naa ko lu bari xam ne am na lu mu xam lu mu xamul woon. di wax ni leen fàttali daal yéen. di leen fàttali yéen. góor gi daan nañu wan loo xam ne yéen yéenay famille. góor gi daal wanoon nañ loo xam ne ñun xamoon na ni yéen yéenay famille. Amadou na moom bari na ci lu mu ci xam. nee na Baye Amadou Gueye mu baax mii kaar. malgré que yéen yéen sax xam ngeen. parce que seen jotaay bi. seen jotaay bi. du n'importe quoi. du n'importe quoi. donc de ma gàttal rek di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm merci jërëjëf euh, soxna si maaleykum salaam tur bi maam kan maam lan nga si euh, suñu maam sëtam la taaw ci sëti gannaaw ay at ba nga xamante ni euh, dëdd na tey ñu toog fii di ko fàttaliku lan ngay yëg fi nga toog ñu ngi am kontante ñëpp ñu fi teew parce gis nañ fi ancien chauffeur gis fi sëriñ si gis fi ñëpp sët yeeg yaay yeeg papa yeeg yëpp ñu ngi kontaan ci loolu. moom ah, ki nga xamante ni moo di ah, Badalo ah, gis nga ñi nga xamante ne ñooy chauffeur yi ak ñi mu doon liggéeyandoo témoignage bi ñu def si moom mu nekk nit koo xamante ne dafa am coloré ak ñi xamante ne ñoom lay liggéeyal mu nekkoon lu jafe loo xamante ni ñoo ngi koy nemmee ko jamono ji mm-hmm. waaw chauffeur yi mënuñoo ba ñàkk bañ a teew parce que maam lebal lu baax lebal leen coloré. sa maam ku ko xam-xam ni da dox si social fii ñi fi uufoon plus de 200 personnes mën naa ni sax ñoom la gënoon njaboote ko ñun ñun ñuy njabootam boo ñëwee doo fi xàmmee kan moo sant loo ku sant loo loolu sax lay ñëwaat dégg nañ si ñi nga xamante ni ñoo doon def témoignage si euh, doomam yi am na si ko nga xamante ni wax na ko léegi dañ daan ndax dañ daan wax sax ni euh, seen papa daanaka euh, étranger yi entre guillemets ñoom la gënoon considéré que ñoom yéen loolu naka ngeen ko doon yëgee. non loolu ñu ngi ciy bég parce que loolu la ñu jàngal ñun ñun ñii ñëpp ci ay social fi nga ñi nga gis ñi ñëpp ay satoon lañ loolu lañ jàngal social ndax sa maam fu bëggoon ku jàmbaare ku bëgg liggéey am jom am fula moom loolu la bëggoon boo jàmbaaree rek moom neex nga ko waaw. boo jàmbaaree moom da lay bëgg mais yow euh, tey nga nekk sëtam lan nga dund loo xamante ni ak moom tey jii mën nga ñu ko fàttali euh, di kontaan. man man sama fierté la moom man dama koy namoo daal parce que góor yàlla la woon gaynde dëgg moom la woon. benn anecdote. <laughs> man ma lu may fàttaliku ni mu bëggee woon course farce bëgg euh, Serigne Touba en plus li mu doon def ci nit ñi yéeneem daal ndax nit ku baax la woon dafa bëggoon nit billaay wallaay taala loolu buñ koy wax fii sax ba suba du jeex loolu la waaw. Euh, tey tey jamono ji euh, nga comme wax nga ko léegi nga nekk euh, ki nga xamante ni yaay première sëtam nga nekk koo xamante ni yow it gis nañ tànk bi nga xamante ni moom ngay def jamono ji nga nekk koo xamante ni daanaka macha allah fi nga teg sa tànk daanaka foofu la ko tegoon moom tey yow loolu lan moo la poussé à ce ngay def yu mel noonu. noonu la wala tamit. non la seen gaynde muy ñëw nga yor yat mu ne jata ko gën sama maam gaynde la woon ay doomu gaynde rek lay mën a jur actuellement man maa ngi si feer bi man tamit yor naa nit yu bëri waaw maa ngi sant yàlla waaw kon yow da nga da ngay roy employé yu bëri du ma ni sax samay rak ak samay frère yu may liggéey loolu liggéey nit ñi <laughs> maa ngi si feeraay bi waaw. mu nekk liggéeyu góor yow nga nekk si ndax nga ngi dundee lool. non maa ngi si metti na nag mais du ma daw. Hmm. amul loo xamante ni yaa ngi ko siy dund mu naqari. si maa ngi si dund lu metti parce que fu ma toll ay problème rek maanaam mën naa ni alaw le sama bi yëpp man maa ko yanu parce que lu ñuy lu jug ci marché bi dañ naan mën waaw bërki déeb rek am naa benn coow boo xamante ni pont maag pont bascule la woon tudd tudd moo tax waaw. ok jërëjëf. ok merci ah, ah, ñuy fàttali suñu maam. Badaloo Ndiaye Badaloo. yow lan nga dund ak moom. su ma najaay Badara Lo de lu ma dund ak moom macha allah duma ko fàtte te affaitement bu ma amee diggante Mauritanie ak Sénégal boobu àjjuma kenn du ko fàtte tafaaloo moo ma indi mu fekke ba ci buntu kër gi mun ma mun ko koo indi ba mu indil benn bagage sonaar fii nee na ko mu xool muy man mun ma ay doom foo nekkoon bu heure bii ay dëddu yam ci bopp borom waaye comme ñëw nga kër gi lu jóg ci yàlla du ñëw ci yow mu génn li gën a gaaw ci biir xale ci biir néeg yi mu dugal ma ci néeg yi nar maa yóbbu ca kaw man te suuf baax na boobu maa ngi ëmb juróom-ñaari weer mu am fi doom muy tafaaloo nekk naa fii ci mu këram ay ata at li ma bëgg ci macha allah ci moom maa ngi am ci moom tey ma doom jarbaat sama mag gi nekk gaam yëpp ko ba gaam bi muy dimbalo doomi adama dima ku may mujjee wax ak moom ci àddina boobu ci la génn àddina mu woo ma benn jour mun ma kànni yow da ngaa luuya man ko waaw mu na damaa bëgg bu ma amee mooy nga seet fan laa la kër may la boobu laa gis wax ak moom amul ku mu dimbali tu doomi aadama man mi daf ma woon jàmbo dama defoon jarbaat doom amul lu ma defut moo tax damaa doon rayante ma am kër ndax moom yëbb na dafa may wuteel kër moo tax reyant naa ba am sama këru naa ko gërëm naa ko mun ma mboolem ko say mbokk koo xam nga xam ne dañ koy sonnal indi ko fii dana lekk dana naan te lu jógati yàlla du ñëw ci bunti kër gi dem naa ba armeeram Touba ya Papa Ndiaga moo yolu caabi dem ba ci moom ma ñaanal ko ndax kóllëre ba ma jaar ak moom te boo ba léegi bay ma ay doomam de lu ñu def danaa ñëw bànneex ma ñëw naqar ma ñëw ndax yàlla ak bakkanam ak njabootam sant naa leen gërëm naa leen yàlla suuf si sedd ca kawam yàlla lu njaboot bëgg ci àddina yàlla na leen ko yàlla may gërëm naa leen sunt naa leen nag maa ngi seen gànnaaw toujours. jërëjëf maman. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si tur bi naka. Awa Kane. Awa lan nga si suñu maam Bada Lo. waa dëgg lu neex euh, sama yaay la jóg ñu ci am mbégte contentement tey teew ci bis bi. te di ñaan suñu borom ñu yàgg fee teew tamit di ko ñaanal ndax nekk na bis boo xamante ni buñ koy fàttaliku la tey bis bi demee nii mu nekkoon loo xamante ni moom da daan teg mbana su paree xooñ bi at benn dogu yàpp la si lekk mu nekkoon koo xamante ni tamit ku social nekkoon ku bëgg ay doomi aadama nekkoon ku mën a dimbali ay doomi aadama nekkoon nag murit xàkkan yoonu Serigne Touba bi euh, def ci lu ne bañ na ko bu màggal Musaana jot benn otoom du daw ndax kenn ku ci nekk xam nga ni transporteur la woon. ba nga xamante ni tey euh, su may wax ci moom damay tënk rek waaye mën nañu wax ci moom ba suba te du man man man képp du ma jeexal ndax liñ naan rek lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca li ma ci moo ci kii moo ci keneen ak keneen ki nga xam ne sax toogagul ba ci jàmburu yàlla yi liñ naan euh, sa maam Bada ndawalu guddi la dangay làmb rek doyal daj sa morom làmb ndax booboog léegi am na vingt ans ñu koy jooy nag ndax tey amaana su fi nekkoon àdduna dafa bari ay ndog-ndog amaana ndog-ndog yi xaw a am ci diggante bi ñun ñuy sëtam du am waaye tey bu ñu góorloo ba mën ñu ñu mën a demal suñu bopp ñun ñeewuñu suñ benn moroom ñun sët yi laa waxee waxuma doom yi grâce à moom la parce que man tey mag kii toog muy maam jaara bokkoon nañ ci ay sëtam yu ko gën a jege ba tax tey jóge na fi muy ñun mi ngi ci ñun ndax tey boo nee badaloo rek ñun suñu feete lay doon moo wuñ ko nag tiitaroo wuñ ko ndax xam nga lu tax dafa nekkoon taalibe Sëriñ Tuubaa mu dem ba am ngërëmal sëriñ Fallou Mbacke ndax noppam ak boroom ndax dañu nekkoon ay gone di ko fréquenté parce que dafa am lu bari lu umpale loo xamante ni nit ñi dañ ko desee xam ndax tey da doon liggéeyal sëriñ Fallou pour ma tënk rek ndax histoire bi dafa gudd ba sëriñ Fallou jël loxoom bu tedd ba teg ko ci boppam ni ko ba da amal ba da amal waaye tamu law ba faaw kon yaakaar naa ni lu lewul war lu lawul du mel ni. Salaamaaleykum. maman. maaleykum salaam. tur bi naka. Faat Diop. Faat Diop. Aan ñu mu doon toggal badaloo ci waañ daanaka ay at ba mu dëddoo àdduna léegi. sama kanam la ko ma bokk Soodo Diop yaay ñaasa ji ma dëkk Ngaay Mexe. Alaaji Góora Diop jur ma. Ibra Kasa Diop jur Soodo Diop. may jaayi foode yaru ba sama bopp bi watu am sa faali toxu géejawaay badaloo ne ak sa day taxu géejawaay te sama waa kër ñi gisuma kenn ku leen attan ku leen mën a toggal bu ma jaayee fo fo de soti ba bu ma dëppee fekk Xadija fii ci gaaraas sax muy jaay Xadija di sama mag bu baax di sama yimpaañ bi yaay ndey jéeg mi passion nu bokk dëkk yaraax bu ma jógee soti ba badaloo fekk foo ne Xadija ak nu mu toll mu fay ko jox ko sofóor yeeg apprenti yi ma toog ci Xadija ba ñibbi jot mu jeexal na ànd raxasuñu dem ñibbi bada ni man de jaaxle naa maam xali ni ko bada loo jaaxle mënu ko ab sa day ñibbi géejawaay te oo ma ko toogal sama waa kër ñi ñi ko yor rek a man a nekk ci sama kër gi maam xali ni ko yàlla jeexul mu ne ah, ma ni ko gis naa fi gone goo xam ni yaakaar naa ni ko indi ci gaaraas bii dina yor waa ñi ba yoraale waa kër gi Ablaye Bada ni ko foo ko xamee saa bàjjen mu ne ko xanaa muy jaayi fonde di wàcc di ñëw ci Xadija ñu bokk dëkk mu dëkk ngaay mexe allaaj góora a jur ko te gone gi de ni ma ko gisee mu ne ah ma ne ko man naa ne ci kër gi barke Serigne Fallou Mbacke Bada loo taal atoom yónni ndëri Fall ñu dëkk sama kër ak Cissé sama kër mag Moussa Diop Yaraax ñu dëkk fekk ma nu dem tuur ñu di ma war ba timis gisuñu ma ma ñëw Moussa ni ma foo deman ma ne ko danoo génn dem tuur te tàgguwunu la noo ngi jéggulu boobu la daayira Maam Jaara doog a xew daayira lan dem di natt juróomi dërëm kër mère Falla mu ne ma yow daal am na ku fi ñëw badalu de lañ ñu moo lay seet ma ni man mu ne ama ah, ni ko ah, lool day jóob tiitu ma ci ndax du lu ma def du lu ma wax ma ne bàyyi ba de la ma war a seete xaw ma ko mu ne ma nee ñu dalaa soxla lool ngóor si bu ne ngi oto la ñu ci ginnaaw kon bu subaa nga xëy dem wujju ma daal di xëy ndékkiwu ma fajal laa ñëw fii jub ndari mu song ma ne ma yow foo de man njóoba yaa mën a dox faat jóob laa tudd ma ne ko mënu maa dox de damaa di man daay mun ma bada seet na la fu ne ndax at sa day toxutu daa bëgg ñëw ca gaara sa bee di ko toggal sama yaay na seede la la seede bu rafet man mi dinaa la ko seede nee na ku la fi indi dinga fi mën a ne ndax noo bokk dëkk Kajoor góor a jur jur lu nga bokk ak Soodo Jóob baay mu daal di ñëw nuy waxaale bara ni ma man de dama laa bëgg nga di ma toggal añ ak reer bu tàkkusaane nga yekk sa reer bàyyi fii te bëgg nga wax ma ñaata laa lay fay xam nga ni booba juróom benn xaalis la ko ñaata nga may fay mu ne ah ma ne ko ah man de Baye Bada mënu ma laa wax lu may fay te demuma ca sama mag Moussa Diop. mun ma yow foo dëkk ci ngaay ba ni kër Alaaji Góora Diop mu ne ma ndax xam nga Sooda Diop ma ne ko saa yu jógee di jël si fi matt akub dund maa koy jox reer nu waxtaan ba xamante Ibra Kase Diop jur ko Alaaji Góora Diop jur ma Sooda di sama mag Bada ni ma dutuma la fay dërëm yow bu ma neexee jël la nga di ma toggatu du la fay dara ndax maay sa mag te yaay rek soo def. salaamaaleykum euh, papa ñu ngi lay ziar. yal na ko yàlla na mu neen def. bàyyi nañu tur bi naka la. Saliou Dieng Saliou Dieng Touba. papa Saliou euh, tey nga ñëw fii si bés bi nga xamante ne daanaka bés bu am solo la. ka euh, dafa suñu maam euh, Badaloo léegi yow mën nga lan nga ñu mën a wax si moom ak naka lan nga dund ak moom loo xamante ni yow mi tey mën nga ko wax tey ji ñun sanaa doon jàmbaar joo xamante ni jàmbaar yi fàkk tëdd la nekk ku am fulla ku am jom ku am ngor ku nangoo liggéey képp ku mu àndalit boo mënta liggéey boo ñëwee ci moom di nga mën a liggéey parce que da lay teg ci yoonu liggéey fii fi lañ jàngi métier bi ñuy ñëw fii xamuñu dara ay xale yu ndaw lañ fi lañ jàngee métier fi lañ joxe oto ñuy liggéey di dem ci àll bi fi lañ xamee lépp daal lépp lu ñu war a xam ci wàllu liggéey rek macha allah xame nañ ko ci Baye Bada mu yërëmoon ñu yiir ñu sàmm ñu di ñu teete bu baax a baax a baax nga xam daal moom amul benn problème ouvrier da ko bëggoon fonk fonk goo xam ne saa yoo ñëwee boo ko soxlaa gis da nga koy gis rapidement waaw. nekk nit ko nga xamante ni mu nekkoon chef d' ku nekk gis na jamono ji chef d' entreprise yi ni ñuy def ak seeni i employé moom naka la meloon ak yéen yéen employé yi. ñun employé ñu meloon ak ñun kenn ku ci ne da laa yërëm bu weer dee da lay jox li nga moom oto bi mu lay jox oto bu baax lay doon frais de voyage doo am problème ci àll bi. waaw benn problème doo ko am nga yor oto Badara Lo dem ci àll bi am problème déedéet ndax oto bi mu lay jox dana baax du am benn jafe-jafe macha allah Baye Badara daal li ñu koy ñaanal mooy suñu borom eh, dolli ko ay leer ak mboolem ku mu fa fekk ak ku fa fekk te xam ni daal moom vraiment kenn la woon daal ci ñun. yow lan nga ñu mën a wax si loo xamante ne dund nga ko ak moom te doo ko fàtte. li ma dund ci moom te du ma ko fàtte mooy am na kàddu boo xamante ni mi ngi ko daan wax nee nit du lekk ñax waaw nit du lekk ñax ci moom laa ko mos a déggee waaw parce que day jël ouvrier am toujours day ñu xottil ay yére ñuy sol. day euh, boo li muy li muy bañ daal mooy nga nga gëj sa kër wala nga nekk nit ku ñàkk fayda mais boo buggee sa bopp rek day kontaan ci yow boo amul day fexe noo amee waaw kon Baye Bada moom vraiment man de li ma am lépp ci moom laa ko amee waaw vraiment. ñii bokk yi ñii ma bokkal Bada ndax sama papa bu ma masaan di wax ak moom mu a ma sama famille. ma ne ko mais loolu c'est facile à régler danaan ma facilul pour régler de famille bi yéen taxu leen may wax ñii ñoo taxoon ñuy wax chauffeur emprunté yi ak turandoo yi euh, li ma mën a wax ci moom bari na trop li ma xam ci moom it bari na trop mais tey sama xol dafa sedd dafa fees ndax dafa ma doon wax yoo xamante ni yaa vingt ans maa ngi toog di ko dund nii léegi rek bi Serigne Fall mi ñëwee ne ma dangay wax dama ne ko dab léegi te kii may wax nii xam na ci dara ndax kii mun naa ne bàyyi la ci man Ousseynou Sow mi mun naa ne mag la ci man tamit kon su ma ko xoolee foofu foofu laay xool kii ndax ñoom ñaar ñi du ñaar kenn lañu ndax Ousseynou xam naa fi ko sama papa tegoon te da waxuma sax ci sama papa maam laay wax ndax man sama papa jàpp woon ni sama papa la damaa defe ne woon sama mag la. ndax ni ngeen nekkoon ndax ni ñu nekkee woon. waaw ndax man sama maama ma yar. te daf ma daan wax ne mu Ousseynou mii maa ko nàmpal mook sa baay papa loo ñoo bokk benn bis bu ñu juddoo damay jox kii ween wi jox ween wi kii léegi dama ne ko du wax boo waxee rek mais comme nit dafa moomul léppam. moo tax sax may wax lii may wax. am na solo mais kontaan naa lool waaw. Mhm. comme yow yàlla moo dogaloon nga fii dégg sëriñ mhm. dégg naa Baye Bada mbaaxam nga yamali ko woon Njenne yamali ko woon Mbacke. Mhm. mais Cheikh dégg naa mas naa si fii ci kër gi. am benn dégg naa bu doon génn. la ca xewoon dañoo bëgg nga may ñu ci tuuti askan wi mën koo teewlu rawatina waa Mak TV. waaw loolu xam nga fi may jàkkaarloo nii la sama papa tëdd fii fii ñu ko doon jàngale kaamil fii la noppaloo. buntu kër bi fee oto bi taxaw fee laa taxaw boobu maa ngi def mécanique di am oto bu may dépanner maam Abdou romb ma dem kër Gasaal waaw ma arrêté ko ni ko daaw fii nga ma romb dem kër Gasaal bi ngay jàllaat gisuma la dama bëgg boo dëppee nga jaar si kër gi ndax waxoon naa ko sama papa dama bëgg nga jaar ñaanal ko mun ma doom kan mooy sa papa ma ne ko badaloo mun ma su ma dëppee dinaa fi jaar ak woyof bi keroog yàlla xam na ni sama loxo yi dafa ñuul kukk ak huile ndax man xam nga mécanique la mécanicien la bi ma koy jox loxo Pape Matar Kébé mi àndal dani ma waay sëñ bi sa loxo yi daa ñuul maa Abdou ne ko nëmm ci loxoom yu ñuul yi ci laa koy nuyu keroog maa ko attaayal sama néeg papa fii ci kaw maa Abdou doon koo xamante ni bi ma ko gisee ak ni ko sama papa du xoole ci ñoom xam naa ni ñoom ñaar am na lu ñu ngi doog a gisante mais am na lu leen relé loo xamante ni du caaxaan ba keroog bi ma du wàccee maa ko tàggee sama papa bi muy dem keroog moo ko ndiral boppam dégg naa bi bañ xaj leen a tëjoon kii xam na ci dara ay berger lañu man xam naa ne maaraay yi kii ñoom ak euh, dawkat yi bokkuñu jataay ma tëj leen ci bureau bi ci kaw bi sëñ bi ñëwee dugg xaj bi ci fenêtre bi la jaar kii yaa ngi toog cartouche gi moom bu ma toogee toujours cartouche yaa ngi wéere nii côté droit am bu ma naan nii sama néeg it wala fu may toog man tamit sama wetu papa gi yëpp bu ma nee nii damay daj cartouche ñii may wax xam nañ boo demee sama néeg sama bopp lal juróom-ñaari cartouche nga fay wekki bi moom bi muy génn avant muy jeexal escalier yi góor gi daaneel na ko bu yàgg. moom xaj waaw te sama dama doon wax ne man maa ci dàq fetal. ma ne ko mais kan moo la jàngal fetal mun ma sëñ Cheikh Mbacke moo ma jàngal fetal nee na ma maa moom dañ daan bokk benn lal bu ñuy tëdd ma ne ko mais man maa la dàq fetal. am na solo mhm. mooy benn événement. Mhm. wala loo dund sa diggante sa loo xam ne marqué na loo xam ne lii. da waaw loolu bari na sëriñ bari na trop trop trop ndax fii yëpp léegi laa koy wax kii pont bi biñ ko fi defee léegi ñaata at la. bi suñu wet station bi nii fan yi laay doo a xam ne pont bi la jóge naa fi guddi dem seeti sama sœur barki sëñ tubaab bi ma dëppee dama doon réer bay dem dëkku kii Njaay kër Njaay loo ñaa jóge ci sama papa génneeg léegi amul dara loo xamante ni saf na ma ci àdduna dara wala ma xool lenn loo xamante ni nit yor na ko muy lu ma bëgg comme loolu ñuy wax ñeetaante man tafaa dama dalul man lu sama papa amul sa ñaar amu ko soxlawu ma ko dara xëeñu dara safuma ci àdduna yi lenn rek laay moytu saa yu ma xëyee ak di ko ñaan yàlla ci li des sama dund du moytu tooñ ak ku tooñ waaw du moytu tooñ ak ku may tooñ waaw jërëjëf jërëjëf Mbaye